point de bi waaye effectivement bon de façon loolu moom euh, lu leer la xam nga boo gisee ma ni est une manipulation parce que adoubé c' est un mot fort ah. veut dire que euh, finalement kii wax loolu en filigrane mi ngi naan bon peut-être que Macky va être candidat c' comme si Macky parce que quand on adoube quelqu'un ça veut dire qu'on le porte. et je pense que les spoliés ak euh, le front bi ñu créé noonu c' effectivement ceux qui ont été recalés. plus Karim Wade bi nga xam ni il a été injustement euh, justement sorti de la liste euh, au deuxième tri voilà sur des bases juridiques complètement illégales et hallucinantes euh, donc loolu euh, moom moo waral front bi taxaw bu front bi bu li ko tax a jóg nag du yàq defar moo ko tax jóg parce qu'on s'est dit qu'à un moment donné quand on est des responsables politiques dans ce pays et je vais revenir sur tous les parce que la conséquence tous les problématiques qui ont été posés là et qui courent dans la presse c'est aussi des problématiques yoo xam ne dañu war a andi ay réponses politiques parce que tey li fi xew crise bi fi nekk c'est une crise politique donc il faut des réponses politiques ça c'est quelque chose de de de c'est fait et donc ay responsables ñoo fa nekk ay partis politiques des candidats ñoo xam ni on a même le cas le cas zéro il est dans le dans dans dans le euh, dans dans dans le euh, dans ce collectif là parce que koo xam ni da nga dem DG e, ñu jox la ñu xool fichier électoral bi gis la ci jox la sa euh, fiche de parrainage nga dem wuti parrainage liggéey liggéey dépenser de l'argent ñëw déposer ñun la non yow tu n'es pas dans le fichier électoral c'est très grave xam nga yooyu ay dysfonctionnement la yoo xam ni peut à petit moom moo indi réew mi tey fi mu nekk moo tax ñu war a toog waxtaan moo tax li nga xam ni euh, dialogue boobu d'ailleurs dans la conférence hier ñun li ñu wax mooy que ni euh, au-delà du dialogue il nous faut une conférence nationale une vraie concertation boo xam ni y a pas que a aussi la société civile mais aussi d'autres acteurs qui ñoo xam ni am nañu lu ñu mën a wax ci ci ci réew mi loolu lu am solo la